soxna Fat Bintou Pouye di responsable des femmes ci zone 2 bu dëkk bu sell bi ci Touba di Ndindi ak li nga xam ne moom moo ko féete kaw eh, jamono ji mi ngi wéyal ab campagne am ne du ko dakkal benn yoon di def effort yëpp ngir mën a falaat nga xam ne moom moo di président Macky Sall ci li nga xam ne moom moo di ci élection ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu nekk eh, jamono ji moom soxna si nga xam ne jàmbaar fàkk tëdd la ci terrain bi nag eh, mi ngi wéyal ay étape daanaka bis bu yàlla sàkk na def lu mat ñetti étape jàpp ñeent laata muy delluwaat ci fi nga xam ne moo di ca këram ca Ndindi niki démb nag dem na xam ne nii daanaka moom mooy gox goxaan yi nga xam ne moom moo di Touba Tawféex Touba Ndigal ak beneen gox boo xam ne nii mën nga ca ndindi ca ginnaaw état bam bu njëkk nag di taw Tawféex ba mu demee nii la ñu ko teertoo lu jaay dangay jaay ah. ginnaaw boo njëkkatee seen ay doléance ba noppi moom soxna Fatou Bintou Pouye Mbacké andil na leen li nga xam ne ni moom moo di ay ndimbal ak enveloppe bu dis boo xam ne nii ah, soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci gox bi daan ci mën a suqaliku ah, ginnaaw bi nag yi lee kàddu la fa yëkkati maa ngi leen di nuyu di leen ziar kontaan lool ci ni ñu teeroo ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal ñu dellu si waat fekk jàmm fekk suñu candidat Macky Sall am ndam kontaan nañ ci démonstration bi ngeen ñu fi defal nga xam ne fu mu nekk ni ñun lépp luñ leen waroon a wax rek jaratul ñu leen di ko wax ndax yéen ñi ngeen dëkkal daanaka jàngal nañ leen ni ngeen war a voté ñun li ñu fi andi mooy ñëw waxtaan ak yéen ci suñu mbër mi nga xamante ne moom moo ñu andil couverture maladie universel ki nga xam ne moom moo ñu fi indil euh, li ñuy wax bourse familiale ki nga xam ne moom moo ñu fi indil autoroute Ila Touba bu ñu fi jógee di dem Dakar di dellu si waxtox genn walla dañ koy def ki nga xamante ne moom moo ñu fi andil programme bu ñuy wax DER di jàppale jigéen ñi ak xale yu góor yi pour ñu mën a suqaliku ba kenn ku ci nekk mën a gis boppam ci biir réew mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñu leen di ñaan le 24 février incha allah bu ngeen xëyee ngeen dem ci fi ngeen war a voté te ñu leen di ñaan yéen ñi nga xamante ne xamagu nga leen centre yi ngeen war a voté ngeen rapproché wu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor comité électoral ñu dem seetal leen fi ngeen war a voté moo gën ba su vote bi ngeen dem di war seen centre de vote bu ngeen xëyee na ngeen dem nuñ leen wanee léegi suñu candidat Macky Sall lii mooy fotoom beige marron la yéen ñëpp gis ngeen ko fi léegi wan nañ leen technique bi nga xam moom ngeen ko war a dugalee ci enveloppe bi bu ngeen ko dugalee bu ngeen ko dugal bu ngeen ko dugalee photo ba pare bu ngeen neexee ngeen ba ngeen bañ a dugal làmmiñ bi ci biir enveloppe bu ngeen neexee ngeen dugal suruxal ko noonu ci biir euh, li nga xamante ne moom mooy kees bi li waa ji wax léegi nag kenn ku ci ne. booy voté na nga ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barke Serigne Touba. ginnaaw ba mu jógee foofu nag mu jàll ci beneen gox boo xam ne nii xaw naa sore ak Touba Tawfekh googulee waaye lépp rek ci biir ndindi la bokk moom soxna Fatou Bintou Pouye nag yëkkati ay kàddu di wax di ñaax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di soxna yi waaye itam mbooloo mu tàkku mi nga xam ne doon nañu ko xaar ci gox bi lee leen wan naka la ñu war a voté ak itam mébét mi nga xam ne nii moom président Macky Sall bëgg ci réewum Sénégal ginnaaw bi nga xam ne def na fi juróom ñaari at ngeen yàlla may ko deuxième mandat incha allah au premier tour lu tax ñu war a voter président Macky Sall président Macky Sall mooy ki ngeen ki leen jàppale ci bourse familiale yi président Macky Sall mooy ki leen jàppale ci autoroute Ila Touba ku ci amati soxla pour dem Dakar waxtu ak genn wàll ngoo di ko def président Macky Sall mooy ki ñu jàppale ci projet DER projet boo xamante ne jigéen yëpp war nañ cee gis seen bopp. ñi jotula am bu sooba yàlla fév euh, mois ñu ngi ci février mois d'avril bu soobee yàlla dinañ fexe ba ñu amagul woon ñëpp am ci bu soobee yàlla yonante bi ñu ngi leen di sant bu baax kii mooy président Macky Sall na ngeen ko xool bu baax jouru élection yi jouru élection yi bu soobee yàlla na ngeen jël bulletin wam dugalal ñu ko ci biñ gàcce bi ba mu gañee ci goon ñu dellu si fawaat ak fête ak yéen victoire bi ceeb bi ñun ñoo leen ko fi andil boole ko enveloppe ana ki nga xamante ne moom moo yor mbootaay bi soxna si Awa bismillah ceeb bi yéen a ko moom. enveloppe bi tamit ñoo ko ci teg. moom soxna Fatou Binetou Pouye nag li nga xam ne moo di ab journée campagne am ci neuvième jour campagne électorale présidentielle bi ma ngi ko jeexalee ca fi ñuy woowee Touba Ndigal di gox bopp bëri na lool ay ñaxtu yoo xam ne fesal nañu ko ci kanamam lu jëm ci ñàkkum courant ñàkkum ndox ak soxna ya ay jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel. yàpp nga jàppale nu bourse kii bourse familiale lii ñuy wax mosuñu cee bokk dox naa dem naa commune ba dox ba sonn. kenn ku am bourse familiale fii amul kenn musul am te war naa mën a nekk président Sall fu mu taxaw ñu taxaw fa wax dëgg yàlla defal nañu lii nga xam ne mën nañ cee liggéey sant nañ ko bu wér waaye lijjantil nu ngir yàlla te xam na ne dina am deuxième mandat incha allah mu ngi noonu financement DER bi gis nga am naa ñetti groupe yoo xam ne photocopie naa seen carte d'identité lépp pare na bu paree nii après dinaa la ko jox ñetti groupe la pour le moment te des na yeneen ñaari groupement yoo xam ne ñoom ñëwaguñu parce que bu doon dix groupement moom dinaa ko mën a lijjanti yëpp nu ñëw te dama lay xamal ne la léegi ñun ñu ngi ci sa ginnaaw du matin au soir nag laa wax suba ba ngoon. ñu ngi ci ginnaaw yàpp yi ah, ginnaaw bi nag moom soxna Fatou Bintou Pouye nag promettre na leen li nga xam ne moom moo jëm ci ab financement ci lu jëm ci wàllum DER waaye tam ak suqaliku goo xam ne président Macky Sall jëlaatee ñaareelu mandat moom soxna si fas yéene na leen koo indil waaye tam fàttewul benn yoon enveloppe bu diis bi nga xam ne nii fépp fu mu dem ci campagne boobule da koy bàyyee soxna ya waaye tam lu jëm ci ceeb bu takkoo takk boo xam ne nii bàyyi na ko ci Touba Tawfeex ceeb le sax moom soxna si muy fësal ne dañ ci war di mbaxal di waxtaani président Macky Sall li feek 24 février di jot ceeb bi ak enveloppe bi ñun ñoo leen ko jox pour ngeen soqali kooku si diggante fii ak le 24 dañu bëgg ngeen di dajee di defar ay mbaxalaki ak i paaj ah di waxtaanee président Macky Sall borom borom kër yeeg doom yeeg yëpp dem voteli ko moo am victoire incha allahu rabbi président Macky Sall nag bu soobee yàlla ñaanal leen ko mu am deuxième mandat lëndëm bii bu soobee yàlla ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ndaga ni déwén bu ñu fi ñëw. ñu ñëw fii di célébrer taal di taal courant bi ñëw ci dëkk bi bu soobee yàlla dinañ fexe ba ay service compétent yi nga xamante ne ñoom ñoo war a defar courant bi courant bi agsi ba fi incha allahu rabbi li ngeen di mama tamit ci ndox mi dinañ leen ko yeggee ba ndox mi gën a eh, eh, eh, agsi ci yéen ba ngeen ba coono yi wàññeeku ñun suñu xeex suñu xeex mooy li nga xamante ne mooy jigéen ñi seen liggéey ci biir kër gi gën a wàññeeku jigéen ñi dem di liggéey di am xaalis di dugal seen i compte bancaire di di faj soxla seen i borom kër loolu mooy suñu xeex li ngeen fi wax yëpp dégg nañ ko fañ ko war a yóbbu fiñ ko war a jooytoo dinañ ko fa jooytoo bu soobee yàlla xam nañ na yéen ñii ñu ñaan leen ak ñàkk leen a ñaan may ngeen ñu ba pare le 24 di ngeen voté président Macky Sall. soxna Fatou Bintou Pouye ñu ne la tëjee dixième journée bu campagne électorale am fas yéene saa su xëyee nekk ci terrain bi ba ngoon jot ngi falaat ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ci ñaareelu mandat bi nga xam ne nii bëgg na ko Sénégalais yi te ñu bëri ci askan wi jàpp ne am na ko ba noppi.